فاز الذين حافظوا على kon ñu wéyal jataay rek ci li nga xam ne aju na ci zakatul fitri eh, indiloon nañ la li nga xam ni mooy wàrtee fi mu doon ci jullit yi ak ni ko sallallahu farataale won ci jullit yi ak li tax mu farataal ko andil nañ la itam li nga xamni moy mooy e, yi ñu koy génne waye kon ñu indi lay li nga xamni rek lu ñu sopp ci ki koy génne mu bàyyi ko xel tam euh sopp nañu ko génne ci fajaru e, bisub julli gi ci fajaru bisub julli gi ba ba julli ba ba taxawul julli manam diggante bobu lañ gëna a sopp ko ci euh nde bu jant bi sooyee rek ci euh, bëccëg ci su ëllëg ji jublu bisu kori gi bu jant bi sooyee rek waxtam jot na waaye kon waxtu fajar yu ba bañ julli moom lañ ci gën a sopp ko ci génne sopp nañ it ko génne ci li gën a euh, baax cib dundam maanaam daal li gën a li gën a neex li gën a baax ci dundam donte la ab dundam daa xaw a gën a neex dundu réew ma ndax wan nañ la ni la gën a not ca dundub réew ma waaye su fekkee mu ab moo gën a neex dundub réew ma it sopp nañ nag nga génne ko ca nag sopp nañ itam koo xam ne xëy na da koo mënul woon waaye ci biir eh, yor-yor bi rek jox nañ koo joxe jox ba tabaarakallaahu xëy na desal na lu mën a génne murum koor ba ëpp ko sax kooku it sopp nañ mu génne ko nag sopp nañ moom it mu génne murum koor waaye sopp nañ itam saax biñ la wax tolloog ñaari kilo ñenti muddu nga baña génné génne lu kopp nak nga baña génné génne lu kopp waaw bo génné lu kopp nak dañ ko sip waye lolu bañ ko def yomb na ndax su fekkee da nga ngaa euh eh, ki ngay jox murum koor mi mu am lu ëpp li ngi koy joxit war nga génné lu tolloog saaxa bi rek jox ko ko waye nak sarax mom amul fu yem nak man ko sarax fukki fukki sax man ko sarax fukki saaxa soko yene tabarakallah eh, bisam gëna neex waaye kon da ngay nat mom lu tollok liñ wara génné a bu dee ci réew yi natt xaalis bi ñu ne cinq euros 6 six euros mbaa sept euros nga yem ca sept euros yi par bop a ah, boo noppee nak bu la nexé sa saraxee nak 50 euros nag mbaa 60 euros mom day gëna bax yool ba day gëna bari rek waaye dal nga yem ci lool kon batay kon ñu ñëwal la nak ci nga xam yu dagan la itam nak yu dagan def ko la manam dagan na bokoy génné nga génné mudd yi ngay génne yëpp donte la ñetti mudd la mbaa ñeent mbaa juróom nga jox ko benn miskin waaye dagan na it nga séddale ko ay miskin nag dagan na donte benn mudd la sax nga séddale ko ay miskin waaye dagan na bu dee ay mudd yu li mu itam nga jox ko benn miskin loolu kon ci nga xam ne dagan na ci moom moom la bokk eh, ci li nga xam ne itam dagan na ci nga génne ko ñaari fan lu bis jiitu bisu julli gi dagan na ko ñaari fan lu jiitu bi sub julli gi nag waaye loolu de am na luñ ci sart nag boo ne Cheikh Khalil daf lay wax ni kooku kat day daf fekk ne rek na koy jox kon yilimaan ji yilimaan ji nga xam ne day mooy dajale muuri yor yi bu ko dajalee mu génne ko joxaat ko seen woroom kooku mu mën koo jox ñaari fan lu jiitu am na sax ñu wax ñetti fan waaye su fekkee da ko jox miskin mi direct nag ki nga xam ne moo ko moom lu jiitu bisub julli gi su ko su ko nag na nga xam ne am nga sarax rek waaye gis sa muurum na nag wàccagu la moo tax daal kon jox ko ñi koy dajal daal muy ilimaan wala ñim délégué mbaa ña mel ni moom rek xam dañ ci tudd ilimaan rek ndax na moo gën a yàlla ci waaye ñi koy dajale daal nga xam dañ ko dajale ba noppi séddalewaat ko ñooñu moom mën ngeen ko jox lu jiitu bis ba ndax loolu xam nga daanaka ab dencal rek baabu yóbbante moo tax ñoom manis na leen koy jox lu jiitu lu ba ci ñaari fan eh, kon sakkaatu fitri mi ngi noonu ñi nga xam ne ñoom lañ ko war a joxit nag ñeent ñi la ka ci jiitu mooy as gor waaye kon nga xam ni boobu daanaka mën naa génn ndax ñëpp ay gor lañ léegi jaam amatut mbaa boog ci gox yi gën a bari ci àdduna yoo xëy na boo nee ci réew yi yu àtte waa julit ba tey ma nga fay dox ki nga koy joxe dee doon ab julit nag ku dul julit soo ko yéenee dimbali ndax man naa sonn na nga yéene ko dimbali waaye nga la kon bu ko jox mburum koor ma nag man nga ko dimbale leneen nag loolu dara nekku ci sonn nga dimbali ko ndax yéen boo sonnee ñaari mu dimbali la nag waaye waroo ko jox mburum koor yi ndax boo ko joxee mburum koor mi nag doo am mburum koor ba ca ku ñàkk la war ak miskin waaye nga bàyyi xel nag faqir ak miskin bi moom ñoo ci gën a yell na doon yi koo xam ni eh, xayri xaasim du nekk ci banu xaasim du bokk ci banu xaasim maanaam mooy giir gi Seydina Muhammad bokk nekk ab sërif banu nag ngir bokk ci góor moo la ci yóbbu loolu nag xam naa sax bëreetun baa xàmmeetu su leen mbaa sart yi tax mu mu bañ ko koo joxit mooy day fekk ni jullit yi ñoo ko gàddul ab dundam tax ñooñu des leen a war a ñoo leen war a julli leen war a gàll seen dund ci kaw addiye nag am ñoom duñ lekk sarax adiye lañ leen di jox waaye su ca loolu mun nag mu nga xam ne dafa ñàkk comme ñëpp rek ba tey mënees na koo jox nag mënees na koo jox eh, asaka ja nag kon ba tey Eh, bokk na ci yi nga xam ni waaw ñu ñooñ kon ñeent ñooñu lañ ñeent ñooñu lañ ko war a jox kon ñeent ñooñu lañ ko lañ ko lañ ko war a jox waaw eh, ba tey nag jigéen ji nga xam ne daa nekk ak borom këram te borom kër bi di bokk ci way ñàkk yi moom mën naa génne muurum këram ci alalam jox ko borom këram jigéen mën naa jox muurum këram borom këram mu mu doo koog safaan ba nag safaan ba góor moom mënut a jox eh, soxnaam muurum këram ndax moo ko war a dundal waaye jigéen ji daal moom mën naa jox muurum kooram borom këram mu wuteeg asaka nag ndax dañuy wax ne bu doon asaka borom xam-xam yëpp ci ngir mi dañu waru koo mën a jox waaye bu dee muurum koor daal moom mën na ko mën na koo jox moom kon muurum koor nag ñi nga xam ni wàcc na leen mooy ki nga xam ne rek amul lu ko dundal ci bis bi lu mat ba ba jant bi so waaye su fekkee ni daa xëy daanaa wax nañ ko sànq ci li ñuy sopp so ko ñu génne dafa xëy ci yor-yor bi rek bu yàlla indi xéewal ba mu am lu mat war naa génne su génne it su amee loo xam ni génne na li des li ko mën a dundal ci bis bi rek la ca topp te la kilo fa des wala ñaari kilo na tàmbali génne ca loola buy génne it na tàmbali génneel boppam teg ca soxna sa teg ca doom ya su fekkee ni ñoom ñëpp dañoo mel ni moom mu desal loo xam ni mën naa génneel ñaari nit kon mook soxna see génne bu desal ma génn kenn nit mu génneel boppam bu desee lu matul saax it nga tax si benn kilo rek fa des it mu génne kilo boobu rek dafa siyéene nag ndax yàlla tegul kenn laayu kalif laaw na si laaw saa suñu borom tegul kenn lu mënul nag kon noonu lool lool mi nga xam loolu mooy li nga xam ni kon ñooñu lañ war a jox loolu lañ ci sopp ñi ñi lañ ko war a génne itam eh, koo xamante ni bii ni nag yàlla dogal na nga man ko te génnewoo ko dëgg la waxtu génne bu jant soo wees na waaye yow du la wàcc nag donte la yàtt la nag segam bi biñ koy war a génne man nga ko te génne woo ko moo xam fàtte la ko yóbbe moo xam ak càggantee la ko yóbbe te càggante moy mooy fàtte moom la euh, sariya tuddee fàtte wala ay xat-xat mbaa daal ak ñàkk xam xëy na bis bi jàll nga deen kon war a tookoo fàttalikoo sax nag yow koor yi weesu te defu te loolu dara lay bu yow nga gaaw génne ko xam ni wartee fi wàccu du la wàcc mukk nag bàkkaar bi it dafay des nag bàkkaar bi dafay des te kon defe naa génne lu toll ak ñaari kilo joxe ko wala rek sax njaboot nañ toll génne waale leen loola moo gën nga gàlloo bàkkaar bu dul tàggoog yow e, benn yoon kon mel na ni foofu la ñuy e, e, jataay bi xam naa kon ba beneen jataay gi am ñu ñëw ci li nga xam ne itam mooy wàllu julli ga ñu yàlla defal dégg ak